Aliou Cissé ak sénégalais yi dangay rey ba tas wallaay ndeysaan Aliou Cissé tey tey lu ko sénégalais yi yàkkut rek doon ko fàtte salaamaaleykum amateur de foot nuyu leen ko ci nekk seen tur ak seen sant match boo xam ne nii métti woon na lool ci ñun Sénégal Bénin waaye faaw ñu xam ne dañoo demoon fekk si bene seen public feesoon del malgré y avait des sénégalais mais nag africain yi dangay rey ba bu la ci gën a bon nga ne ma kii la kañ la ñuy da ngay reba mu muy noonee moo tax benn équipe bu mag a mag du nangoo ñëw fekk suñu footballandoo ñun mais match bi tey gars yi on pouvait mieux faire. malgré qualification leer na amuloon enjeu mais tamit Sénégal ngay wax yaa jël champion d'Afrique yaa yaa doon champion d'Afrique da nga koy wane ci biir terrain bi y avait pas de jeu bi nga xam ne ñun soxlaa naan ko en tant que champion d'Afrique mu ngi noonu waaye loolu waru leen a bett lu waral loolu mooy que fi jeu di commencé muy milieu terrain mooy que ñun dañoo bëri ay milieu défensif loolu faa ñu wax ko de ñun daanaka suñu milieu terrain yëpp ay milieu défensif lañ amuñu boo xam ne dafa créatif milieu offensif boo xam ne nii capable na téye bal maanaam waaye rey joueur xaas-xaas techniquement nekk à l'aise passe dem dugal genre Kevin De Bruyne genre Modric genre Gundogan loolu la ñu manqué ci nu milieu terrain xanaa Pape Matar Sarr on peut comprendre mais dafa blessé moo tax jeu bi ngeen bëgg dëgg-dëgg sénégalais mënu leen góo leen ko am tant que leen milieu boo xam ne dafa créatif milieu boo xam ne offensif la c'est ça loolu faaw ñu suñu ko bàyyi ci xel bu baax a baax ay joueurs de couloir ngeen am gaaw na dañ ciy profité. wane suñu bopp a Sarr ma ma xamoon démb barki démb ndeysaan jamono ji moo commencé réeré mbir Iso doom nday Iso bëgg naa gis Ismaïla ma ma daan gis de mu ngi noonu Nicolas Jackson tey ci attaquant pointe bi ko teg malgré boobu boobu noonu dañ ko koy faral di teg foofee ca ca ca Villarreal dafay faral di football tey di dugal mais tamit c'est pas évident tey mooy première ak Sénégal titularisation mu ngi noonu pelouse yi da ngay ree ba wax ci mais tamit Aliou ay changement am ak ay. placement am joueur ak joueur yi war a teg ci place bi ak yooyu loolu ba léegi gars yi ñu ngi ko ciy critiquer te dafa des balaa maa ñëw ci tegunu joueur sax ci remplaçant yi lay wax Aliou Cissé 65e minute mëne nga foofee tournel équipe bi nga dugal gars yi nga xam ne jotuñu woon football genre passement saako mais yow passement nan la mën a amee confiance nga dugal ko ci moment boo xam ne moment difficulté koo xam ne nii tey mu waroon doon premier match am mosul football équipe nationale Sénégal mu war a am confiance. ci moment yoo xam ne ni moment mbégte nga ko waroon dugal moment moo xam ne ni Sénégal soit moo dominé jeu bi ko confiance ko defee day dugg équipe bi mais fi nga soxlaayee foofu stress bi rek dafa rëy waxuma la nga boole ko foo xam ne ni da soxlaa bi tamit fi ngay remplacer da ngay rebatas fa ñu mënee fa nga waroon dugalee Pa Ousmane mu jéem a lan la ñu mën a apporter mais moment bi ko dugal noonu non dañuy waxante dëgg rek mais mun laa woon carrément la nekk ci moom. waaw nag la muy boole moo bëri non seulement bëgg naa ñëw jàpp équipe bi bii mooy premier match am ak équipe nationale Sénégal. tamit normalement rek waroon na mën a titulaire mu ngi noonu Habib Diallo nag mën naa ne daa amul chance kooku ak bi rëy jot a dugal yëpp mooy loolu xelaatoon naa tey ñu football mais ñëpp mënuñoo footballandoo ci ay choix am dafa des suñu coach équipe nationale Sénégal dañ koy wax te de ay choix am mu ngi noonee mais nag jeu bi ngeen bëgg dëgg-dëgg sénégalais yi non mënoo goo leen ko am tant que amoo leen milieu boo xam dafa créatif ci biir ñu sabaj ko ci biir mais trois milieux défensifs mënoo ko kii malgré Krépin Diatta y avait Krépin Diatta tey ci milieu terrain bi loolu du loolu la Pape Alassane Gueye pas de six ay milieu défensif ba pare yamaatuñu foofu ñu ngi ñuy dugal ñu soxlaa bi ñu dugalaat beneen milieu défensif <laughs> ñaari milieu défensif Gana Gueye ak euh, Cheikh Kouyaté sama copain ñu ngi noonu moo tax jeu bi foofu sax dafa mujjee kale benn noyé ñoo mujjoon dem ci deuxième mi-temps fin temps bi temporiser gérer jeu bi ñoom ñoom moo àpp woon vent seize benn tir cadré loolu faa ñu xoolaat ko bu baax a baax kon nag Aliou erreur yi bëri na choix mauvais choix yi bëri na kon nag bàyyi ci xel nga gën koo góorgóorluwaat bu baax Sadio Mané gis nañ ne mu ngi bëgg di wane boppam malgré ba léegi ça reste mais vraiment mu ngi ñëwaat nank nank Sadio Mané su international sénégalais mu ngi noonee loolu daal daanaka moom laa gis laa l'ensemble mais bi wu <laughs> benn noxay eh, seen i jii ay bi yu rëy rek lañ koy dugal il est excellent il est bien mais boo xoolee deux bii yu ñu doon encaissé yëpp équipe nationale Sénégal ay bii missile yoo xam dañ koy naawloo ba day nar a mbëkk baar bi mais dans l' ensemble ça va nag qualifié nañ daanaka mooy loolu méttiwul bu doon sax sunu qualification dafa nekkoon en mais macha allah kon nag gaa yi ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee match bi kan mooy flop ak lu ñu tardel ci match bi tey ngeen bindal ñu ko. on pouvait mieux faire six tentatives benn tir cadré je d'accord en tant que champion d'Afrique kon nag gars yi nañu gën a góorgóorlu bu baax a baax lii gañewul Brésil malgré tey tourné nañ équipe bi ñi daan football ñi ñu gis ñu football tey daanuñu leen woon gis Formose Mendy macha allah tey daa assuré sa premier match sa première titularisation si je ne me mais bal rombul non deuxième titularisation contre Bolivie Bolivie si je ne me trompe pas gën a la jox incha allah ça va xale nga li ci kanam raw li bët muy noonee gars yi dans l' ensemble loola nekkoon analyse match bi jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaajëf.

ay